Euh, yow da nga bokk si euh, yéen indi ngeen 10 médailles d'or hein ci ci ci li nga xamante ni wax nañ ko ci bilan euh, mhm. bu Sénégal 10 médailles d'or ci mhm. lutte traditionnelle lutte traditionnelle ngeen dem Abidjan wane fa lu am solo boy nga bokk ci ñi nga xamante ni sélectionné nañ leen woon mhm. dina ñëw d'ailleurs ak monsieur Touré ci processus de sélection boobu nga xamante ni am na solo yéen lan ngeen fa wane lu indi médaille d'or yooyu waaw mooy xam li ñu war rek moy sénégalais dañu am ci ñun confiance bi ñu dem ñu jël lépp jébal nu waaw bëgg nu dem indi ay ndam bon ñu dem lépp loo xamantene ni laaj ñu ko def parce que dañu dañu entraîner entraînement yu baax a baax a baax parce que père Ambourage mhm. maa ngi ko ci sant bu baax a baax a baax sunu entraîneur ak père badzi booy takkal takkal médaille. wala nga takk benn ma takk benn booy fay ñaar la indi ah ci ci lutte traditionnelle. Mhm. <laughs> waaw ñu entraîné ñu bu baax a baax nag waaw ñuy sant suñu entraîneur yooyu wàcc ci waaj bu baax a baax a baax baax moo tax pour ñun ñu am ndam nekkul loo xamante ne nii maanaam man yaakaaruma ne dina jafe ci ñun parce que mm-hmm. entraînement yi ci war def nañu ko te tamit am nañu confiance bu baax a baax te gëm nañ dina am ndam ndax suñu ay wajur ñaanal nañ ñu ko. Mm-hmm. suñu ay kilifa ñaanal nañ ñu ko daal.

donc vous ngeen enregistré. enregistré dem. photo animation bi. mu ko ñu ko di def parce que Sénégal ñun loolu lañ xam. Ah, donc ça a été un spectacle. Euh, toute mm-hmm. la presse internationale euh, nationale d'ailleurs euh, ont relaté ce fait ce show c'est pas peut-être loolu motax nous ñu gagné parce que voilà ñom woné mm-hmm. nañ sen dolé ak sen tactique effectivement mais ñu japp ni loolu vraiment def na succès bu Sénégal Fofu Abidjan. Mm-hmm. Boy mu nek lo xamantene dal yeen liggéey ngeen ko fa. mais ci plan catégorisation nan leen lañ fa indé fofu Abidjan. nan lañ leen fa indee. nit ñu fa indee neen la mooy ñun man maa doon def prise de sang bi waaw cent vingt kilos bi quoi prise de sang bi maa ko doon def. Mhm. te gars yi ma àndaloon ñu. prise de sang. waaw muy xam nga ah, affaire yi bu ndaw la ba cent vingt kilos. Mhm. waaw sunu gars ñu àndaloon tamit nekk gars yoo xam ne ay gaynde lañ. Mhm. ay Cheikh Tidiane Niang. ay Boy Sène Salamene. Omar Diouane ak euh, Moussa Faye. noonu nekk ay gaynde parce que li problème ñu li xam moom mooy. kii day def ndam ñëw jox kii confiance ne ko demal indi ndam ñëw. Mhm. waaw noonu lañ ko jàppee suñu biir waaw déggoo tamit ñu nekk ñoo xamante ne tamit xàccandoo dóorandoo ñun fu nu munti dem ak bu nekkee Sénégal benn bopp lañ. moo waral daal suñu ndam jëfewut suñu ndam jëfewut parce que bëre moom yaakaar naa ne boo ci màggee boo ci juddoo ma màgg ci war na bañ a métti parce que man à l'âge mhm. man jànguma école. bi may am sept maa ngi daw di dugg camp di dem bàcc seeraas moo ma jàngal bëre. ñaata at nga am ay instant bi. instant man 92 laa judd. 92 nga juddoo. waaw. Mhm. waaw di dem camp ba di entraîner baa ci téye suma loxo di ma jàngal bëre ak Lamine Gayen bi ma àndal nii ak Aliou Ba ñoom Baye Dame gars yi nga xam ne dañu sonnoon ci man Ibrahima Niang sama mag di ma force bëre bi. waaw au début nag commencement métti woon parce que maire bi bañoon na mais bi ñëwee ba ci biir après gars yi ñaan nañ ko fa bàyyi na mu mu bëree. mais ñan nga ñan dajeel parce que gis naa ni roumain yaa ngi fa woon marocain yi tout ça yan yan nationalité nga dajeel. waaw daje nañu ak euh, guinéen daje nañu ak euh, marocain. nga door guinéen bi. waaw mhm. daje nañu marocain <laughs> daje nañu ak burkina bi parce que burkina bi ñaari yoon lañu parce que après jox nañu victoire contre Niger. parce que ñoom it amuñ plus de sang parce que seen plus de daa ñëw ba foofu asam dafa ëpp. moo tax bëriwul bu dul yi sax at mm-hmm, mm-hmm. parce que yaakaar naa ne boo rombee trente trente trente ans rek boo ko amee doo dem. d'accord waaw te moom comme asam dafa ëpp moom moo taxoon kii ak ñeneen yeneen victoire yoo xam ne noonu lañ ko gagné. waaw waaw léegi daal loolu la ñuy def daal suñu borom defoon nañu ci ndam ñu koy delloo Sénégalais yi quoi tamit. waaw gis nga moo tax euh, Cheikh maa nii takk man tamit euh, médaille bi parce que médaille bi pour euh, Sénégal yëpp la mhm. moom moo ko ñefe foofu ci Abidjan mhm. ñun ñu mën ko takk tiitaroo ko Mëgey Touré